بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه اجمعين mbokk yi ñu ngi sant sunu boroom aji màgg ji te kawe noo ngi koy bàkk di ko kañ di ko jaare ci turam yu sell yi ak melokaanam yu kawe yi nga xam ni boroom bi subhaanahu wa taala rek mooy ki ko am nu ngi seede seede dëgg ni képp ku borom bi subhanahu wa taala gindi kooku aji gindee ku lay doon ba faawu te dara mënatu koo dëngalooti ku sunu borom bàyyee ak boppam ci maanu teem ba mu sànq kooku kenn mënatu koo gindeeti noo ngi ñaan borom bi mu boole ñu ci jaamu muy gindi noo ngi julli di salmal ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam di ñaan sunu borom mu dëkkee dotti waamem xewal ci kaw yonent boobu ak ay saxaabaam ridwanullahi alayhim ajmain dellu siwaat nañ tey di ñetteel bi yoon ci sunu bindab tafsir al quran al azim fi hada alchahr al mubarak muy ramadan sunu boroom defaloon ñu tawfiq ci sunu bind bi weesu ñu dugg ci suratu tuur ba mu jeex yàlla suñu borom defal nu ak dégg dégg ko ànd ak topp topp ko ànd ak lu mu nangu tey bi xusne tawfiqi lbaari jalla fi ula ñoo ngi tàmbalee suratu najmi muy saar woowu nga xam ni suro suñu borom daf koo tuddee bi diw suñu borom mi ngi wax ni audu billahi min alshaytan arrajim bismillahi arrahmani arrahim والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيضى إن هي إلا أسماء سميتموها سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى kon laaye yooyu ci suratu an najmi ci tawfiq bi sunu borom mooy nekk sunu bind noo ngi ñaan borom bi subhanahu wa taala an yajal alquran alazima rabia qulubina wa nuura sudurina wa jilaa ahzanina sunu borom subhanahu wa taala aji màgg ci te kawe te bari ay man-man ak i sañ-sañ mbokk yi ku ñu war a xam la ku ñu war a gëm la li waral ñu war koo xam mooy mboolem ku ñuy séqanteel ay defantey teraanga ki ci gën a foor bal sax kenn ki laay wax mooy sunu boroom ndax mooru defal te nun defalul ko li tax ñu war koo xam mooy moom rek la ñuy jaamu am ngërëm ëllëg keneen ku nu jaamu ku dut moom bu nu dajeeg moom duñu am gër li tax ñu war koo xam mooy sunu boroom moo gën a màgg ñëpp gën a kawe ñëpp gën a baax ñëpp gën a sell ñëpp li mu séq ak yow doomu aadama soo ko xamoon maanaam mbégte ngay am ci xam ko waaye mbégte ngay am ci topp ko moo tax lépp lu ñu sant nekk ay takaaliif waaye day mujj nekk ay ni'am muy ay xiiwal sunu borom moomu moo wax alquran ji lafzan wa maanan alquran nekkul lu ñuy sottandiku di ko jottali naan yonent bi traduire ko nga jottali ko nit ñi déedéet waaye alfaaz yi muy baat yi maana mi muy li muy tekki ñaar yëpp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam benn xaraf bu moom tàbbiwul ci téere bi kon keneen ku dul moom mun taxul di wax sunu borom mooy seet lu ko soob mu tuddee ko aw saar saar wi sunu borom mi ngi ko tuddee an najm an najm am na muy bidiw wa shamsi am na muy jant wa layli am na muy weer wa duha am na muy yoor yoor yonent yi mu seet ña ko ca soob mu tuddee ay saar seet ci jigéen ñi kam ko soob muy Mariam mu tuddee ko aw saar maanaam mbir yi nekkul ci gën a baax mooy tax sunu borom tuddee law saar bàyyi ka ca des wa illa deesu tuddee Mariam bàyyi Muusa kon mbir mi ajuwul ci gën a baax waaye borom bi mooy soob seet lu ko soob mu tuddee ko aw saar comme ni muy seetee lu ko soob mu ginc suuratul najmi borom bi mi ngi ko tuddee biddiiw bidéew nag simpalewul comme ni ko nit ñi foogee maanaam ñun danoo foog ni boo teenee seet lu ñu tuddee weer nga ne weer waa nga nga ne ah daa xaw a tuuti de nga siggiwaat seet lu rëy lu roo nga ni jant baa nga nga jàpp ne moo ëpp yépp nga xoolaat seet as cop su sew di niroog bën bën a puso nga ne bidéew baa nga nga jàpp ni moo ca gën a tuuti fekk mbir mi demeewut noonu yow fi nga nekk a sori fi nga nekk adduna la tudd adduna adduna mooy addani lu wàcc ba suufe da ngaa suufe yow gis nga suufe gi nga suufe moo tax fi ne mënoo régler ca kaw yow waaye borom xam-xam yi nga xam ni seen xam-xam dafa jëm ci wàllu biddéew yeeg ñoom seen an nujum ah wala ñu leen ulimaul falak ah ci xeetu tubaab yi ñu naan xuma astronomie la ñuy def maanaam xeetu xam-xam boobu da lay saxalal ni la am na ci xeeti biddéew yoo xam ni ñoo ëpp sax jant bi ñuy séen biddéew am na ci biddéew yoo xam ni ñoo ëpp sax jant bi ñuy séen jant bi su ne tay ak ab lumière am bu xëyee suba fenk sànni ab lumière am dana def ay quelques secondes wala quelques minutes doog a yegg si fi ñun ndax ni mu soree kon bul ko seen nii rek nga yaakaar ni mi ngi nii déedéet waaye am na ay biddéew yoo xam ni nangami téeméeri kilomètre la ñuy def ci lumière doog a yegsi ci ñun xoolal foraay boobu bidéew boo xam ne mu nga ci asamaan sa su sànnee ceeñeeram lumière am xam ngeen lumière vitesse bi muy daw bokk na ci vitesse yi gën a gaaw lumière am moom bidéew yoo yale nga xam ne yàlla moo leen xam bu ñu sànnee seen lumière nangami téeméeri vitesse dana ko daw doog a yegg si fii àdduna yaakaar naa loolu sori na de bal am na bidéew yoo xam ne borom xam-xam yi dañuy wax ni ba mu sànnee ay vitesse am ba tey lumière am ba tey li muy daw daw ci ay vitesse ak seegul àddina mënta ak si àddina ndax soriwaay ba subhanallah alazim moo tax yàlla mu ni fala uqsimu bi mawaqi an nujum ah wa innahu la qasamu ah lii di jar na gëñ man yàlla maa ngi gëñ ci barab ya nga xam ni fa la yàlla làq bi déew yi fa la ñuy toll di sànni seeni ceeñeer wa innahu la qasamu dëgg dëgg mbir mi jar na gëñ allahu akbar mu ni jar na gëñ azim giñ lu màgg sax law taala mu ne bu doon xam ngeen xam ngeen mbir mi ni mu demee ndeysaan nun nag danoo xamul waaye bu nu xamoon danañ xam ne mbir mi jar na géñ sunu borom mu ni wan najmi ida hawa wan najmi ida hawa mooy tolloog fala uqsimu bi mawaqia nujum dafa am lu ñuy tuddee al najm am lu ñuy tuddee al kawaakib najm mooy mufrad bi nujum mooy jamu bi muy mufrad mooy singulier mooy benn jamu mooy pluriel mooy mbooloo najm ak kawkab sorentewuñ dafa am xeet yoo xam ni nujum lañ leen di tuddee am xeet yoo xam ni kawkab lañ leen tuddee kawkab الكواكب ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح ها وجعل ها؟ وجعلنا رجما للشياطين فيمني بزينة الكواكب فلمني وإذا الكواكب تثار yooyu yëpp benn la ay xeeti bidiw la yii ñoo tudd nii yee tudd na ci des seen kër gi borom bi subhanahu wa taala def na ni bidiw yi ci seen jëmmi moom dañoo am ay wàccuwaay am ay tur timit am nañ ay tur am ay wàccuwaay am na otarid am na zahra am na mirriix yooyu yëpp ay xeeti tur la yoo xam ne ñu jàng dañ koy xam saar wi nga xam ni moo njëkk a wàcc àndaaleeg ak sujoot ñu sujoot ko mooy saar wi alquran am na ñaata sujoot fukk ak juróom ci xadiitam abdullahi bin amr ibn al aas nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngal na ma fukki sujud ak juróom ci téere bi ca kaw ma nga tàmbalee suratul araf ci suuf mi ngi jeexee iqra ci diggante bi ca la xaj bokk moom doog moo ci am ñaar ci la naj mi bokk ci la iqra bokk isa samaan shaqat ci la bokk ba ci aaraf ci la bokk bi ci raxati ci la bokk noonu nga koy toppee ba yegg si ci suuf ba mat fukk ak ñett wala juróom ba ca Maryam moo ko xaaj ba ca Maryam moo xaaj moo xaaj téere boobu sujood sujoodu tilaawa mooy kiy jàng alquran ba yegg si ci aaya bu am sujood mu rot daal di sujood ci suuf loolu même bu fekkee nit ki ci julli daf koy def loolu ñu bàyyi ci xel imam buy jàng ci alquran ba fekk ko ci julli mu fekk ko ci julli mu yegg ci barab bu ñu war a sujootee waxuñu for force nag na sujoot waaye bu ko neexee lañ wax sañ naa sujoot te suba mbooloo ma dañ koy topp yow kese booy julli yow yàgg nga jàng ci iza tutla alayhim ayatu rahman xarru sujjadan wa bukiya saar wi jeexu nga daal di wàcc rot sujud benn sujud siggiwaat continue sam jàng kon même ci julli nit ki mën na koo def benn saxaaba nee na damaa yi jàng damaa gént damaa gént di jàng alquran may jàng di jàng ba yegg ci barabu sujud jotuma sujud mu ne ma seen garab gi sujud bant yi sujud li ma jege yëpp daal di sujud moom jot a sujud moom ci gént mu yeewu nettali ko yonent mu ni ko booba mënoon ngaa sujjóot nag te mbir ma gént na Omar ibn al-Khattab taxaw na ci kaw min bar bi xutba juma jàng ba yegg si ci suratul xajji ah fa sunu borom di tuddee sujjóot bu njëkk ba mu daal di wàcc sujjóot waa jàkk yépp sujjóot ci àjjuma ji jëlu si mu xutba waat ba yegg si ci barabu sujjóot ba gaa yépp di jekk-jekkal pour sujjóot mu continuer yëfam moom dem fekk lam ci doon jublu mooy jàngale mbir mii mën naa nekk waaye beet mën naa nekk bu imam buxaari mu ni toxal na jële ci abdullahi ibni amr wala ibni omar mu ni awalu suratin unzilat fiha sajda mu ni wan najmi saar wi njëkk a wàcce ab sujud mooy suratu najmi nee na bi mu wàccee ñu ngi woon ci makka xam ngeen saar wi mina suwaril makkiyat yonent bi sujud saxaaba yi sujjóot yéefar yi sujjóot yéefar yi sax dañoo sujjóot keram lu waral loolu alquran ji ci boppam daa doon ci fooraay ak dayawaay foo xam ni nit mën na koo dégg mu def sax lu mu tëyu bi yéefar yi sujjóotee information boobu moo law dem Habasha ca Éthiopie ñu giñal leen ci yàlla ni yonent bi sujjóot na yéefar yi sujjóot nañ jullit kon juboo am na ci seen biir loolaa waral ñenn ci saxaaba ya takk seeni bagage ñibbi si ndax jàpp ni juboo daa am fekk déedéet yonent mu ne afara'aytum allaata wal uzza wa manaata athalithata al ukhra alakum azzakar wa lahu al untha shaytaane moom moo sànni ci xelu nit ñi loolu la yàlla wax ma arsalna min nabiyyin illa idha tamanna alqa shaytanu fi umniyati yonent bu yàlla yónni suy jàllale ay kàddu seytaan di wut ay porox ndollu di wut moom it lu mu jàllale yonent bi moom lii la wax te loolu mooy li gën a wér seytaane moom fexe ba yuuxu wax loo nit ñi tilka algarani qul ula wa inna shafaatahunna la turtaja laat ak uzza manaata thalithata al uxra mu ni tilka ñooñee alxaraani qul ula ñooy sang yu mag yi wa inna shafaatahunna dem ba alaxira ñu tinu la la turtajaa ñi ngi koy yaakaar xoolal li yéefari kay ñu ne kon kay juboo na mbir mi kay jaratul xuloo dem sujjo laat ak uzza manaat ak saalisat al uxra sang yu mag yaa ngoog te seen ak ramm yowmal qiyaam day am njariñ ñu ne kon kay jubul la yow kay yonent bi kay liñ doon xuloo ak yi yëpp jaratu ko ñoom ñëpp ñu daal di sujjoot fekk wax jooju seytaanee ko sifle gaa yi dégg ko waaye yonent moom waxul loolu donte ñenn ci mu arrixu dañuy wax ne yonent bi moo wax loola te loolu njuumte bu rëy rëy rëy min naxiyat al ilmiya al xadisiya su ko defee gars yi ba ñibbisee ba yegsi ci lañ xam ne mbir mi nam demee woon noonu la demee ba léegi yéefari ba ñu sujootee am na benn waaye boo xam dafa lànk ni jadd jaddaaral sujootu waa jooju mooy umayat ibni xalaf moom xallafahu llah umaya ibni xalaf fa xallafahu llah moom dafa gis gaa yi sujjóot mu ne moom daal rëy naa sujjóot mu yëkkati benn teggu suuf daal def nii ah wala doyloo naa loolu doy na sakk moo tax yàlla na borom xam-xam ñu ni moo tax sunu borom daal di koy alak fa qutila kafira moo tax ñu jot a tub moom bokku ca moom ñu rey ko rey nu bon foog naa ñu ngi ko reyee Badar moo nekkoon sangab Bilaal kon suratu najmi mi ngi noonu sunu borom subhanahu wa taala dafay giñ ci lu ko soob tey daa giñ ci biddiw sunu borom mu ni wan najmi man seen borom maa ngi giñ ci biddiw yi ida hawa jamono bu fàqee jëm suuf nga xam ni ma ngay suuxi nag pour bët set jot li wala fi naan bët set na wan najmi maa ngi giñ ci biddiw ida hawa su fàqee jëm ca barab ba nga xam ne mooy mawaqi an nujum nga xam ne ma ngay suux nag pour guddi gi jeex wal layli id adbar daal di dem wa subhi ida tanafas daal di ñëw sunu borom subhanahu wa taala al imam shaabi nee na nañu xam ne yàlla moom moo sañ a giñ ci lu ko soob waaye mbindeef moom sañut giñ ci li ko soob waaye ci ki bind lay giñ muy sunu borom borom xam-xam yi nag aaya ji am nañ ci ay fiin yu bari am nañu wax ni an najmi ñoo ngi ci namm biddiiw su fàqee am nañu ne déedéet ñu ngi ci namu biddew waaye biddew bi nga xam ne dafa fàq ñu koy sànnee shayatin yi zayanna samaa dunya bi masabih masabih foofu la muy tekk ay biddew moom nujuma kawaakib benn la wa jaalnaaha rujuman lishayatin gis nga dañ ko def muy ay jam ay flèche yi ñuy sànni shaytaane yi ñuy seey ñu ne loolu lañ ci namm am na ñu ne déedéet sax sunu borom alquran la ci namm an najm ma nujjim mooy loo xam ne dañ koy séddale di ko sànnante di ko sànnante ba mu yegg di ko def ay doget doget ñu ne alquran sunu borom da koo wàcce ci ay doget doget unzila munajjama ñu ne kon alquran lañ ci wàcc lañ ci namm lan mooy seen tegtal ñu ne fala uqsim bi mawaqi'i nujum wa innahu la qasamun law taalamun azim mu ne innahu la quranun karim maanaam innahu lii ñuy wax ba tax ñuy géej la quranun karim ñoom ñu ne loolu lay tekki donte li ëpp ci mufassiruun yi dañ koo tekkee pirin mu njëkk mi mooy an najmi bidiw ida hawa su fàqee jëm suuf jëm ca barabu sow kaayam fa nga xam ne fa lay laax sunu borom mu ne li muy géñ mooy jawaabul qasam ji mu ne maa dalla sànkuwul saaxibukum seen waa ji wa maa gawa teggiwut yoon wi maanaam jàddut yoon addalaal wal giwaaya borom xam-xam yi dafa am ñu ne ñaar lañ benn la dalaal mooy sànq gawa mooy sànq am na ñu ne déedéet ñaari baat lañ yoo xam ne yépp sànku la waaye am nañ lu leen wuutale dañ ni su fekkee dañ ni addaal mooy arrachid nga xam ni daal mooy ki sànku contraire ba mooy arrachid mooy ki jub tege ci yoon wi ama algaawi ki jàdd yoon wi mooy ki dem ba xam dëgg dëgg ca tànkam jàdd ca la ko soob loolu la ñu tuddee algaawi moo tax riwaaya ci la bew di jógee taxa baxa ci yooyu la jóge ci baat boobu la mooy wóor na ni kii li muy def moo ko tey te wax nañ dëgg ñaari baat yi am nañ tuuti wuute kon ma dalla sànkuwul saaxibukum seen waa ji wa ma gawa jaddut yoon timit jaddut yoon teggiwut tànkam ci yoon baa fi mu ko teg foofu la allahu akbar xoolal ngir saxal ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam mi ngi ci dëgg borom bi da koy gëñal wan najmi gën naa ci bidiw yi ida hawa su fàqee jëm ca sowkaayam li may gëñ man seen borom mooy maa dalla saaxibukum seen waa ji sànkuwut gis nga fii am na sew-sew bu am solo boo xam ne mat naa bàyyi xel mooy yàlla ak yéeféri li ñuy juuyoo juuyoo ak yonent bi dafay doxale seen diggante ak soxba soxba nag waxuma saxaaba soxba mooy ak àndandoo seen waa ji li wolof naan seen waa ji fële dani wa ma saaxibukum bi majnun fii mu ni ma dalla saaxibukum seen waaji gis nga baatab seen waaji ci làkku arab ak ci làkku wolof dafa am buumi lënkale wa ma arsalna min rasulin illa bi lisaani qawmi amul yonent bu yàlla mës a yónni lu dul làkk bi saw xeet di làkk ngay làkk da ngay nekk ku dëkk ci dëkk bi ñu xam la gis nga doomu aadama di daawa ci ay bokkam am na ay danger yabeel ak miineel yu ca nekk waaye danger boo gën a oyof ngay dem di daawa ñeneen ñoo xam ne xamuñ la xamoo leen ndax bis bu fitna juddoo kee moo lay gën a mucc benn ngoo ma dalla saaxibukum ak wa ma saaxibukum bi majnun parce que ñoom saaxabagumu nabiyu sallallahu alayhi wa sallam yonent bi dund naa ñoom ñu xam ni huwa alqawi ñu xam ne huwa al amin ñu xam ne huwa saddiq seedeel ko ay melokaani jub ba noppi weddi ko kon wa jahadu biha wastayqanataha anfusuhum dolman wa uluwa mooy weddi nañ waaye intérieurement li ci seen biir mooy gëm nañ waaye ak mbon moo tax nangu ñoo feeñal gëm ga foofu nag sew-sew bi ma ci nam ma jàngale mooy gis nga képp kuy daawa ci ñun fexeel fa nga dëkk na nga séq ak ñoom ak soxba bañ man laa askanale seen waaj nga xam ne wóor na ni dafa am yu ngeen wuute waaye am na yoo leen amal njariñ dafa am yu ngeen wuute waaye xamaluñ la luñ la mën a sikkalee lu coow li bari bari bari bari bari bari am na yum la nangul même bu bariwul waaye lu coow li bari bari bari bari ci ñoom it nga bokk loolu lu ma ta am soxla te lii xëy na ñëpp ko soxla waaye ki gën a nekkub daa yi moom la gën a intéressé kon maa dalla sunu borom mu ni sànkuwul saaxibukum seen waaji wa maa gawa jàddut yoon ndax waxal nañ ko sànku na jàdd na yoon réer na alku na gëlëm na njabarkat la buxaabakat la ila axiri sunu borom mu ni wa maa yantiqu yonent bi du addu benn baax anil hawa te fekk mi ngi ko teg ci bànneexu bakkan allahu akbar amul benn personne ci kaw suuf ku dul ab yonent lu dul léeg-léeg nga rëccile wax sa bànneexu bakkan mbaa nga rëccile wax lu amul mbaa nga rëccile kadalik waaye yonent bi benn kilima bu du dëgg musul génn ci gémmiñam sallallahu alayka ya rasulullah benn bis abdullah ibn amr ibn al aas nee na damaa toog di bind xam ngeen ki ëpp ci lu mu soloo jële ci yent mooy abu hurayra moom la al imam suyuti di wax ca alfiyamba wal mukthiruna fi riwayati al athar abi hurayrata yalihi ibnu amr abi hurayra moo ëpp lu mu soloo abdullah ibn amr ibn al aas moo ci topp te abi hurayra nee na li tax mu jege ma mooy moom day mokkal di bind te man soxlawuma bindukaay tax lu ma dégg mokk na mu ne looloo tax mu jege ma ne bu doon loolu sax du ma jege sax ci mokkal Abdullah ibn Amr ne damaa toog di bind xadis yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu yàgg nee na yéebéri màkka yi daal di koy fekk foofu ni ko yow yaa ngi bind wax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam te moom nit la koo xam ne day wax tey suba la mu waxoon suñu borom folli ko ñaareel mooy moom nit la day wax di mer te ku ne xam na ni ku mer léeg-léeg mu wax ba wax lu bëgg la wax wala lu tege ci bànnee xam Abdullah ibn Omar nee na ma jaxasoo naa ma jaxasoo mënatuma bind parce que wax dëgg yàlla loolu day jaxasi nit ndax diw sàngam mii ngay bind ay waxam moom léeg-léeg mu mer te su meree mën naa wax lu tege ci bànnee wala mu wax waxi mer wala mu juum nee na mënatuma bind ma teg xalima jeeg daaje rek dem ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di koy nettali li yéefar yi wax yonent bi ne ko uktub dellul nga continuer sa mbind te nga xam ni làmmiñ wii du wax lu du dëgg lu ci génn dëgg la sallallahu alayka ya rasulullah kon bu dee aboubacarin siddiq lañ mën a jox sifa boobu muy wax lu du dëgg amul ci programme am ak saxaaba yooyu yëpp nga xam ngeen ci ilmul xadis borom xam-xam yi dañuy wax ni riwayatul majhul la tuqbal kuñ xamul kenn du nangu say wax ñu ni ban des saxaaba ya ndax saxaaba ya ibni xajar ñoom suyuti yi ñoom imaamu oqayli yi ñoom ak ayma yu mag ya nee nañ alsahabatu kullukum udul ñoom ñëpp a maan te duñ wax lu amul naafiq yi ak ñoom seen ngay gis ñuy wax lu amul yonente bi nag sallallahu alayhi wa sallam melokaan woowu ci moom la gën a matee sunu borom mu ni wa ma yantiqu ani l hawa yonente bi du wax mukk kaddu yoo xam ne dafay tege ci bànneex xam ngeen doomu aadama léeg-léeg mën naa wax fekk wax dëgg yàlla daa topp bànneexam rek lii muy wax nii waxuma la moom waaye yow mi koy déglu sax xam nga ni kii bànneexam lay topp yi wax rek waaye yonent bi déedéet ku dul wax topp sa bànneex doo wax lu du dëgg sunu borom mu ni in huwa li muy wax nekkul illa waxyun lu dul ak waxyu goo xam ni yuuxaa dañ ko koy waxyu waxyu mooy loo xam ne fa sunu borom la jógee sunu borom jaarale ko ci am malaaka malaaka mu tudd jibril mu ñëw daal di koy waxyu ndax waxyu yi ci malaaka lay jaar am na loo xam ne ilham la tudd ilham mooy loo xam ne sunu borom moo ko yenkeewal nit ki jékki-jékki rek rof ko ci xelam ñaar yëpp am na ilham nag ab yonent da koy am kudul yonent da koy am ndax yonent bi dana tuddee omar omarul mulham omar mi nga xam ne sunu borom moo koy yenkeewal ay mbir loola nag ñu kudul saxaaba yi bokkum ci déedéet dëgg la nag am na leneen lu nuroog ilham mi ngi am ba tey mooy sunu borom xamal la xamal la dara loolu tekkiwul kumpa tekkiwul gën nit ñi tekkiwul xam kumpa tekkiwul nekk yonent tekkiwul jibril daa ñëw ci yow déedéet yàlla moo lay nar a baaxee rek am lu mu la xamal loo xam moo la ko nar a xamal tekkiwut ba léegi li ko nit ñi foogee diw moom yàlla moo ko jàngal déedéet ku suñu borom jàngal ku dul ab yonent amut loolu moom buum googu suñu borom nee na ko tipp keroog ba yonent bi faatu alayhi salaatu wassalaam suñu borom mu ne in huwa nekkul illa waxyun lu dul waxyu koo xam ne yuuxaa dañ ko koy waxyu allamahu jàngal na ko moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam shadidul quwa malaaka moo xam ne mu bari kàttan la muy jibril ayat yi ci suratu najmi ak alam nasrah ak wadduha borom xam-xam yi dañ ciy sukkandiku ni yonent bi yàlla tazkiyewu ko ni ñuy tazkiya nit waaye daf koo tazkiye cër par cër tazkiye mooy lan comme nu ngeen ko waxee ci tubaab boo dikkee ci làkku arab tey boo demoon ci réewu naar yi ci misaal nga bëgg a wut ay ndimbal andi ko fii te ñoom xamuñu la faaw nga andi lu ñuy tuddee tazkiya tazkiya mooy ku la xam mu wane ne yow mii xam naa la ku wóor nga ku jub nga ñu doog laa wóolu kon xaw tuuti mu jege gaaram ci ko su fekkente ne ci wàllu ilmul hadith la cheikh bi mooy tazkiya ab ndongam wane ni diw mii wóolu naa ko moom lu mu leen wax samay hadith rek dëgg la kon xaw tudd ko lu lu garanti tazkiya googu soo koy defal nit da nga naan diw daal wóor na jub na nangam daal di koy généraliser tazkiya ko yonent bi yàlla moo ko tazkiya te bi mu koy tazkiya cër par cër la ko téye gis nga de ma dalla saaxibukum wa ma gawa mu ni ñu ne mu ni tazkiya la ko ci mu xelam wane ni kii moom xel mi xel mu ñor la mu sell la mu jub la wa ma yantiqu anil hawa mu ni tazkiya na làmmiñ bi moom lu mu wax noonu la in huwa illa waxyun yuuxa tazkiya na professeur am allamahu shadidul quwa tazkiya na ab dënnam alam nashrah laka sadrak tazkiya ay jëfam wa wadaana anka wizrak tazkiya aw turam wa rafaana laka dikrak ah bim ko tazkiya ba àggal ni ko wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alaxira nag moom yàlla da lay jox ba ngay doy ne sëkk mu doog a bàyyi allahu akbar moo tax yonente bi saa sallam mbokk yi ku xamoon jagleel gi la jag yàlla jagleel muhammad mu nekk sab yonent yan valeur la am wallahi di nga gën a fonkaat ab di diineem waaye di nga gën a fonkaat ñaan boobu may wax raditu billahi rabban wa bil islami diinan wa bi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nabiya raditu billahi rabban mooy kontaan naa ci nekk gi yàlla nekk sama borom ndax man bu ma amoon beneen borom bu dul yàlla xool naa ba xool waaye du la arrangé wallahi du la arrangé moos wa bil islami diinan gërëm naa l'islam nekk gi mu nekk sama diine ndax bu fekkoon dama bokk ci beneen diine damay ragal du baax ci man wallahi du baax ci yow moos wa bi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam rasulan wa nabiyya gis nga nekk gi yonent bi nekk sama bu yonent kooku dama ci kontaan dama ci am fierté ñaan boobu ma tudd fan la rote ah azkar sabah wal masa rot na ci ak fan fu mu rotaat gannaaw nodd indal azan jazakumullahu xayran kon rot na ci gannaaw nodd rot na ci azkaru sabah wal masa ak sikk sàkka la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu sot rot na ci sikk sàkka ak ñaan bii ñu wax raditu billahi rabba wala allahu rabbi la ushriku bihi ahadan ñett yooyu yépp rot na ci sunu baram mu ni in huwa nekkul li muy wax moom yonent bi illa waxyun lu dul waxyu koo xam ne yuuxaa dañ ko koy waxyu waxyu nag biñ ko laajee yonent bi nan lay mel yonent bi dañuy léeg-léeg damay jékki-jékki dégg ay biri yu mel ni jóolóol yi kolong-kolong yu yu foor sax yu liir ndekk jibril moo yegg si nee na façon boobu dañ koy wax yow ci xadis bii may wax moo njëkk ci saxiixul buxaari léeg-léeg affaire bi ni muy ñëwee day ànd ak doole kàttan ba nit ñi dañuy sedd bay sol ay jaget mu ni man may ñaq bay siit muy ñaq bay siit léeg-léeg day ñëw mel ni ku am nga mént di roofu léeg-léeg mu ñëw nag indi doole joo xam ni nee na doole ji su ma waree ci kaw gëléem gëléem gi day wadd suuf day yées saxaaba yi ne nañ benn bis yeneen bi dafa war kaw gëléem jibril di ñëw di wax yu gëléem gi àtt na tudd yonente bi sallallahu alayhi wa sallam zayd ibni thabit nee na benn bis yonente bi dafa jëloon ab tànkam teg ko ci sama kaw lupp ma jekki-jekki su ma waaye affaire bi mel ni àddina lañ teg sama kaw tànk bi tànk bi nag am mënatu la yëngatooti ma gis yonente bi commencé lox ma xam ne kon jibril mu ne tuuti kon saa tànk bi damm xoolal lu diisee noonu moo tax yàlla mu ne ko sa inna sa nulqi alayka qawlan thaqila préparé lu xew parce que dinañ law jox lu diis mbokk yi wallahi alquran lu diis la mission bi dafa diis alquran ji dafa diis lëggéey bi dafa diis waaye nag yàlla ku mu nar a yen daf lay wutal daf lay wutal téeñ téeñ moo tax yonente bi alayhi salatu wasalaam yàlla mayoon ko dëgër min naaxiatul xalqiya ak dëgër min naaxiatul xuluqiya loo xamante ni wax jala muy diis diis dékku na ko sallallahu alayhi wa sallam sunu borom mu ne allamahu jàngal na ko shadidul quwa malaaka mu am kattan te mooy jibril alayhi salatu wasalam moom la sunu borom ne innahu la qawlu rasulin karim innahu alquran ji la qawlu rasulin karim alquran la ju bàyyi koo ci ndaw lu tedd muy jibril di quwatin ku am kattan la inda dil arshi makin ku am place bu porte la fa sunu borom mutaain malaaka yépp a koy topp samma amin ku wóor la moom jibril mboolem yonent bu yàlla ma sa yónni jibril moo daan ñëw ci yow keroog ba yonent bi gëjee jógee fii la jibril gëjee ñëw malaaka yi mooy seen kilifa jibril tax yàlla mu ne man kaana aduwan li jibril ah ah man kaana aduwan la malaak man kaana aduwan li li jibrila fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idnillah képp koo xamante ni jibril ngay bañ a dégg gis nga gaa yi njëkk ya boo ne mikaayil ñu ne waaw wax nga dëgg de kooku sunu waay la nga ne nga ne azrail asrafil asrafil ñu ne kooku sunu waay la boo ne jibril rek ñu cëppatu wane gannaaw jibril rek lañ contrôle moo tax aaya jooju wàcc yàlla mu ne ku bañ jibril fa innahu nasalahu ala qalbika ba yow nga xam ne jibril lay wàcc yëf yi de musaddiqan li ma bay ne day lay di te dëggal la fi jiitu woon nag jibril la woon de ah ku bañ jibril bu yow nga xam ni jibril moom moo fi indi yëf yi moom moom lañ ko yónni kat borom bi subhanahu wa taala def na jibril muy malaaka moo xam ni zi quwa ku am kàttan la allahu akbar gis ngeen bi muy alak niti luut ya aw laab la roof ci suuf si rek tibb suuf si quatre plan ni muy tibbee tibbam suuf ak jalam bu tuuti boobu ab dëkk moom la jibril tibb ak laafam bi rek teen ak moom jëm asamaan dem ba ca kaw rek dëppoo moom jullool ku am kàttan la moom jibril alayhi salaatu wassalaam jibril nag foto du ko jàpp jibril jibril original jibril mi laa wax nag original jibril moom foto du ko jàpp mooy jibril mii am naa jibril yi foo yi nag moom foto dina leen jàpp ndax léeg-léeg nga gis ci seen foto yi am jibril am jibril xam naa jibril am jinne lay doon moo xam ne dafa yenu ak kaaba am fu ko jëmee waaye jibril dëgg jibril mi tax ñu naan jibril moom foto du ko jàpp déedéet moom foto duñu koo jàpp ko defee borom bi subhanahu wa taala def ku mu nekk malaaka mu mu foor mu kawe te xoolal melal bi ko melal bi ko suñ borom jox wii ci ngay xam ni foto du ko jàpp shadidul quwa kattan gi dafa bari ba foo ko takk romb na ko zo mirratin ku rafet la suñ borom mu ni lum jàkkaarloo ci lumière rek ah lumière wum day fulu zo mirra al mirra am na ñu koy tekkee doole waaye li muy gën a tekki mooy rafetaay ab taaraay ab taar sunu borom ni du mirratin ah ku amub taar la donte dana tekki nag doole dana tekki doole waaye day tekki taar tamit lay wane day tekki doole yonent bi alayhi salatu wasalam dani la taxillu sadaqa li ganiyin wala li di mirratin sawi azaka kenn du ko jox ponkal mu am yëfi boppam ba man ba pare manal boppam kenn du ko jox azaka waaye ponkal mu am doole taxaw ne yëng-yëngaaral wala liggéey liggéeyiwul yonente mu ni kenn du ko jox sarax azaka kon du mirratin borom kattan la waaye borom taar la gis nga jibril bu duggee ci dëkk bu nee xay rek la hawla wala quwata illa billah bu doonum appareil daa jàkkaarloo moom tell lay def daal di toj du mirra fastawa ku rafet lu ko sun borom bind la ku as istiwa mooy taxaw xalaxaka fa sawa mooy taxawaay ca kaw la am taaru rafet yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam gis naa jibril ñaari yoon ci melokaan wi ko yàlla bindee wenn yoon yu maa ngi ko seen mu tallal laaf bi mi ngi fees dell ufuq bi juróom benn téeméeri laaf la am maa ngi seen ca suuf ay toq ma defe ne toqi ndox la nekkate ay peri wuru sa peri jamaa mooy wat ci ci laaf bi allahu akbar kooku fa nu mënu koo jàpp bi mu tallalee fii laaf juróom benn téeméeri laaf fees na jaww ji boo xoolee doo gisati dara bu ko téye fii doo gis asamaan bu ko defee nii doo gis penk bi yént yàlla bi ne maa ngi seen ay toq-toq mel ni toqi-toqi ndox ndek ay peri wurus jama yaaqut dur zabarjat mar loo xalaat ci per bu rafet mu wat maanaam day wax loolu fidda zahab yaaqut zabarjat marjaan yooyu yëpp ci ay xeeti per yi nga xam ni waa addina xam nañ ko ngay seen affaire bi nan pët pët pët jibril la am loolu yent yàlla isa rek la isa yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam bokk na ci melokaanam ah su yëngalee njañ li bopp bi kawar gi su ko yëngalee gësam ko da ngay seen ay toq di want da ngay yaakaar lii toqi ndox yu mel ni ay peri wurus peri jamaa melokaan boobu yonent bi jox na ko Isa alayhi salaatu wasalaam jibril melokaan wii la ko sunu borom jox sunu borom mu ni du mirratin ku am kattan la ak taar fastawa mu taxaw yam jom jonn nag ci ni ko sunu borom bindee yonent bi di ko gis wa huwa bil ufuqil a'la te mi ngi fees ufuq yi ufuq yi mooy gaw jaww ji fees na dell jaww ji fe fare kaw na mooy jóge na ca kaw jox nañ ko mission muy ñëw yonent bi di ko gis sallallahu alayhi wa sallam sunu borom mu ni summa dana mu daal di jege si dana mooy àddina jëm si na àddina nag summa dana mu jege si wàcc si fatadalla yooru jëm suuf fa kaana mu daal di mujj nekk di gëm ak yonent bi qaaba qawsayni loo xam ni diggante bu gàtt la ba mel diggante xala ak xocc comme ni ko wolof yi waxee gis nga fett ni muy rooxee nii nga jël place bi def ci digg bi gis nga diggante cat si ak cat see moom la ñuy tuddee qaaba qawsayn moom la arab yi tuddee qaaba qawsayn xam nga diggante soosu daanaka xaw tuuti kon léeg-léeg daanaka du feesi mbagg mbaa boppee mbagg tuuti lay doon kon xaw tuuti kon bu doon ab jege yaay dañ naan jege na ko ba buy def nii di ko laal aaya ji nag bala may konte borom xam-xam yi am nañ ci ak juuyoo bu yaatu te yàgg te métti ndax aayaat yi diggante sun borom ak jibril diggante sun borom ak yonent bi la wala diggante jibril ak yonent bi ñu bare bare bari ci borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim dañuy wax ni te ñooy ñi ëpp te seen wax a gën a dëgër diggante jibril la ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam loolu aïcha wax na ko abi hurayra wax na ko ak ñeneen ak ñeneen ñu bare bare bari ci sa sahaaba ya ak ñu bare bare bari ci borom xam-xam ya ñoo xam ne dañuy wax ni diggante jibril la ak yonent bi te loolu mooy li gën a wér am nañu ne diggante sunu boroom la ak yonent bi dana fatadalla gis ngeen ñiy wax hadisul isra dañuy sukkandiku ci wax jooju dana fatadalla jege na sunu boroom gën a jege si gën a jege si dem ba digganteem ak sunu boroom mel ni xalaat xocc fa awxaa ila abdihi nag bokk na ci lii gën a nuru wax ci mu jege si mu gën a jege si dem ba jege xalaat xocc fa awxaa ila abdihi mu wax mu wax yu jaam kuy wax yu waate ko dul sunu boroom moo tax ñooñu firee ko loolu waaye doonte gën a dëgër al imam al allaama al cheikh abdourahman ibn nasir al saadi bi muy tafsir aaya ji nettali na juyoo gi bokk na ci moom nettalee ba pare dane waaye li gën a dëgër mooy wax ju jëkk ji di wane ni maanaam diggante jibril la ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sunu borom mu ni jibril di ñëw te xam ngeen ni jibril benn bis yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dafa ñaan yàlla mu gis ko ci jëmm ji ko ah sun borom bindee gis nga bi ko yonent bi njëkk ne jàkk dafa daanu janjang xëm sallallahu alayhi wa sallam allahu akbar gis jibril xëm ñi ñi ñi ñi nit nit ordinaire yi ak simple yi di gën a di gis jibril ñoom te dara du xew ah kon de man jibril mi ñëw ak ma daan ñëw xaar ñoo bokkatul waxuma sax ay gis suñu borom loolu waxuma ko ndax jibril suñu borom a ko sàkk waaye bu fekkee jibril la yonent bi saa sallam xool janjan daanu xëm allahu akbar kon de xawma ko ni mi nga gis jibril moom lam gis lan la ndax am jinne dong lañu di gis daanu xam di yow koo xam ne boo gisee jinne su waay nga daanu xam nga ni nga ni léeg-léeg ñi ngay gis ñu naan dañuy gis jibril dañuy nangam da ngay gis ku dugg xalwa rek daal ni waxat yuuxu génn te fekk yàlla xam ne ne gisul sax am malaaka jinne rek la gis jinne xam nga jinne daa mën a tiitalaat jinne ku saay saay la ku mën a tiitalaat maa ngi fàttaliku bi ñuy nekk daara ja di jàng am na benn waay bu ñu bokkaloon daara di jàng bàyyam danaan faral di dugg xalwa di def ay affaire bi ñu nekkee kat loolu nag xaw ma ndax xam naa ne waaye dañ ko war a tooñee rek comme dëkk bi yëpp commencé ci daal mel ni dëgg maanaam dañ ko doon wax ni ko bàyyam da doon jéem a dugg xalwa waaye jinne ji daa ñëw daal di yor forme mbott neewi rek di fees néeg bi rek mu génn ñëw ko sa bàyyi ba mu doxee ba léegi fa la jëlee ndox maanaam yooyu li ma ci jublu ci nettali mooy ñu xam ne jinne yàgg naa def noonu di jommal nit gis nga su fekkee jinne moo man di jommalee nit noonu léegi xoolal malaaka muy jibril alayhi salatu wasalaam borom bi subhanahu wa taala mu ni bi jibril yegsee ah wa huwa bil ufuqi al aala ma nga bàyyi ko ca kaw ndax mooy indi wax yu gi di wat jëf suuf su ma danaa danaa mooy egsi na jëm si ci adduna fatadalla tadalli mooy yooru yooru ku yooru da ngaa jëm suuf fatadalla mu yooru jëm suuf fa kaana mu daal di mujj nekk digganteem ak yonent bi qooba qawsayni diggante xala ak xocc aw adna te gën koo jege aw fii du tekki li shakk wala déedéet fa kaana qaaba qawsayni aw adna wa arsalnaahu ila mi'ati alfin aw yazidun yaxshawna annaasa ka xashyati llahi aw ashadda xashya ñetti aw yi ma lim ak yi mel ni moom yëpp tekkiwut li shakk ci alquran li muy tekki mooy aw adna te gën koo jege yaxshawna annaasa ka xashyati llah aw ashadda xashya te gën koo ragal wa arsalnaahu ila miati alfin ci téeméeri junni nit laa ko yabal moom yunus aw yazidun te ëpp ko bu ngeen fàttali ko ci suuratu saafaat kon loolu lay tekki aw fii tekkiwut li shakk ah am na benn borom xam-xam bu mag bu ñuy wax imam Abu Bakrin al Bazzar am na benn taalif téere bu am solo bu mu taalif ci xeeti lënt lënt yii di am ci alquran benn bu ci nekk yooyu rek la topp nag mu def ko lu nuru kaamil nag moom wàcc jëm suuf benn bu ci nekk lan mooy la gën a dëgër ci prima ak la ca borom xam-xam yi wax wa min qablihi imamu suyuti rahimahullah ci téere bu mag ba fi ulumi alquran muy al itqaan fi ulumi alquran sunu borom mu ni ma yebal ko ma mu jege fa kaana qaaba qawsayni aw adna te gën koo jege diggante bi mu ni te gën koo jege kon kay xanaa laalante nañ fa awxaa sunu borom daal di waxyu ila abdihi ca jaamam ba ma awxa lam ko déey lam ko waxyu loolu nag sunu borom mubham la ko def ibham na ko mooy xamuñu ko ñenn ñi nee nañ sunu borom da ko wax ni ko àjjana ab yonent sax laa du fa dugg lu dul yaa yegg si dani ko wala saw fa yutika rabbuka fa tarda xam nga borom xam dañu ay talammusaat talammusaat mooy wax duñ wax rek nga jéem caa wut am xam-xam waaye daal sunu borom moom nëbbu na ko lëm na ko fa awxaa yàlla daal di waxyu bi waasitati jibril ila nabiyi sallallahu alayhi wa sallam ma awxaa lam ko déey loolu nag ñenn ci borom xam-xam bu ñuy firi xadisul isra wal miraj dañ koy tudd dendale ko diggante suñ borom ak jibril léegi nag mu des masala mi ndax suñ borom yonent bi gis na ko wala gisu ko ndax day tekki diggante jibril ak yonent bi ndax day tekki diggante yonent bi ak sunu borom waaye daal lu mën a am ndax yonent bi gis na sunu borom wala déet am na ci borom xam-xam yi ñoo xam ne dañ gis na ko ohon kay gis na ko ndax dañ gis yonent bi salaam gis na yonent bi dañ koo laaj mu ne gis na sunu borom ñaari yoon benn bi gis ak bët la benn bi gis ak xol la am na beneen riwaaya te boobu sax bu wér la yonente bi ne ataani rabbi sama borom yàlla moo ma dikkal moo ma dikkal ah bi ma dikkalee mu laaj ma yow yonente bi ndax xam nga kaw asamaan lu fay coow la riir ma fay am lan la riir mi lan la ah nee na mu jël loxoom moom suñu borom xadis bi ma Cheikh Albani wéral na ko mi ngi ci saxixul jaamia mu jël loxoom teg ko ci sama kaw ba maa ngi yëg seddaay bi muy ndax xam nga ci kaw la fay riir lan la yonente bi ne ko déedéet ah mu ne ko riir ma coow laa ngi nekk ci jéego yu bari yi jëm jàkka ja gaa yi waaxu wii waaxu jëm jàkka ja ak sa njàpp toj nga gaaw dem toj jàpp waat ah ak nga yàq julli ba pare yàkkamti waxtu julli ñëwaat gis nga wa intidaaru salaati baada salaat mu ne ko fi ne ci tiyaaba yi nekk ci yëpp yooyu fi ne mooy coow lu bari li ne ci asamaan allahu akbar xoolal kon mbokk yi loolu nim nim rëy ay ngëneel ñenn ci borom xam-xam yi ñu ne déedéet sunu borom yonent bi gisu ko bokk na ci seeni tegtal la tudrikul absar ay bët gët yi duñu gis yonent sax yi duñu gis sunu borom wa huwa yudrikul absar yàlla mooy gis nit ñi ak seeni gët bokk na ci seeni tegtal yonent bi laaj nañ ko ci xadis ab jaabir mu ndax gis nga sunu borom mu ni nuurun anna ara leer la nu ma koy gisee am na beneen riwaaya yonent bi Aïcha dani képp ku la wax ni juróomi yëpp yonent bi yàlla tudd ci jeexintalu suuratul sajda mooy ku xam kañ la taw bi wàcc ak yooyu ku la wax ni yonent bi xam na ko wala mu wax la ni la yonent bi gis na sunu borom na yëg ni wax na lu tudd lu rëy ci sunu borom loolu nag tiitluwut parce que Aïcha lam xam rek la nettali ndax moo waxoon ku la mas a wax ne yonent bi mas naa taxaw tuur ndox wax na lu amul wax na dëgg parce que lim gis ku nekk la nga gis mooy sëg dëgg ci yow waaye nag jaabir ibni abdillah nee na ànd naag yéen sasana ba mu yegg ci ginnaaw kër fu tolloog ab sën mu taxaw tuur ndox ndox moom wisoo maag ko jox keram loolu moom leer kon lam gis la wax su ko defee juuyoo googu nag borom xam-xam yàgg nañ cee coow ñenn ñi liñ gën a lëngal am nay tegtal yu bari mooy sunu borom yonent bi gis na te it laa maani anal mu gis ko laa maani an mu gis ko dama ne am na ci borom xam-xam yi ñu ni yonent bi sunu borom gis yonent bi gis na ko mayit ma ni seen wax jooju laamaani atamit mu gis ko ndax bari na bari waana yoo xam ni yàlla xañ na ko ay yonent may ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li ko sunu borom defal ci isra ak mi'raj ba mu yegg ci fa moom moom rek ko am ñaareel bi jibril ci jëmmi boppam da koo gunge ba àgg ca benn barab ni ko moom inna illa lahu maqam maalum ku ne ci ñun am nga foo war a yàq allahu akbar jibril la alayhi salatu wasalaam ànd ak yonent ba mu yàgg mu yegg si mu ni ko fii nag laay yem fii moom felaa mën a man duma ko dépassé te da nga yaakaar malaaka yi dañu malaaka yi daa am fu ci yem di gis nga boo yegg see fa ci sidratil muntaha te dinaa ko tudd léegi la xaaj ba jóge kaw sidratil muntaha la yem xaaj bi jóge suuf sidratul muntaha la tàmbalee jëm suuf beneen bi ci des mooy borom bi subhanahu wa taala def na ni yonente bi alayhi salatu wasalaam yàlla dañu laqad raa min ayati rabbihi lkubra ñenn ci borom xam-xam ñu ni bokk na ca ayat ya muy jëmmi suñu borom ñenn ñu ni déedéet suñu borom waxul jëmm ja waaye ayat ya la wax kon gis nga masala la moo xam ne yàgg naa jur coow ci àdduna bi ci borom xam-xam yi gis na sunu borom gisu ko ala kulli xaal coow moom bari na ci waaye borom bi subhanahu wa taala mu ne laqad raa min ayat rabbil kubra kéemaani sunu borom yëpp yu bare bare bare bare gis na ko ci sunu borom mu ni fa awxa borom bi waxyu ila abdi ci jaamam ba ma awxa la mu ko waxyu sunu borom mu ni ma kadaba weddiwul alfuaadu xolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam maa raa la mu gis loolu mooy lan xam ngeen doomu aadama mën naa gis ba pare weddi boppam doomu aadama mën naa gis ba pare mu ni ah dama yaakaar sama bët bee ful mbaa mu gis ba pare mu ni dama yaakaar lii ak njabar la mbaa mu gis ba pare mu ni dama yaakaar ne xëy na sama sama gis bee neexul wala mu gis ba pare weddi xam nga loolu kenn mënu ci dara am na koo xam ne gis na ñaar dërëm yi xam ne lii ñaar dërëm la mu génn du ñaar dërëm mooy jàkkaarloog jant bi dana jant bi dana tàngal nga naan gisuma ko xam nga loolu nit sañ na ko ci weddi fetterlu sunu borom ne yonent bi du ko fetterlu de ma kadaba al fuaadu xol bi weddiwut ma raa la mu gis gis nga sunu borom subhanahu wa taala mu ni afatumaaruunahu mu ndax da ngeen koy diingat ak di ko weddi ala ma yara ci yëm yëm gis ayat ya bokk na ci gis ngeen te loolu insha allah ci suratul isra la gën a leere bi yonent bi yeeg see ñi def na isra ak waa mi'raj dañ ko weddi gars yi di tàccoo di sar xolle yi nga wax yépp moom bii moo ci gën a fere kaw nag moom am góor gu daw daal dem ci Abubakar Siddiq ni ko nag tey nag moom nag tey moom moom sa waaji nag ci nga koy ba jaaree bàyyi ko ba faw abadan abadan Abubakar ni lu xew ñu ni nee naay ci guddi gi dem na fi Jérusalem te Jérusalem xam nga ne weer lañ fay demee ñun mu ni dem na fi ci guddi gi may wax ñu naan ñoqale na nag dem ba ca kaw Abubakar ni est ce que moo ko wax wala waxu ko ñu ni ko moo ko wax mu ni moom bu ko waxul woon daal man maa am ci problème waaye comme moo ko wax gëm naa ko moom lu mu wax gëm naa ko parce que maa ngi gëm lu gën a kawe loolu ndax day xëy ni ma sama borom nee na man du ma lijjël sa fu mu gisanteeg moom bu nee ma nee na ma rek ma gëm la mu wax allahu akbar moo tax ñu jox ko sifatu siddiq bokk na ci gars yi biñ bëggee daaneel yonente bi sallallahu alayhi wasallam xam nga nu ñu def mi ngi mel ni suñu jàkka ji nga xam ni sam waay benn waay musu fee ñëw ci jamono ju écran amut ku la ko nettali amut ñu bëgg a daaneel yonente bi sallallahu alayhi wasallam daal di koy wax ni ko baytil maqdis dañoo bëgg nga nataalal mu ko nan la mel mu mel ni borom bi daf koo tegal ci kanam mu leen wax buntu bee nga féete barab sàngam buntu bee maanaam mbir bi di leen ko nettali na jàkka ja mel yemul ci loolu mu tegal leen ni leen karabaanu ñoom diw ñu ngi fi jóge bi sàngam dem saam ñoo ngi ñibbisi te seen gileem gu mel nangam xaw a doowu taal réer na ci àll ba xam nga loolu moom ab yokk la moom waaye ba mu ko yokkee bi gars yi ñëwee effectivement seen gileem dafa réeroon ci àll ba ndeke yonent bi gis na ko sallallahu alayhi wa sallam ci bi muy rañaan waaye borom bi subhanahu wa taala mu ni afatumaaruunahu ndax da ngeen koy weddi ala ma yara ci li mu gis moo xam foofa la moo xam ca kaw la ca kaw gis na ajana gis na sawara su- suñ borom ndax gis na ko gisu ko kay fa la cooro nekk waaye ajana sawara gis na sidratul muntaha sidratul muntaha mu ni garab la goo xamante ni ponk xam nga sidr ci wolof mooy tolloog siddéem garabu siddéem ci la làkku arab mooy toll ci làkku wolof sidratul muntaha garab la goo xam ne ca kaw la nekk punkalub garab la goo xam ne la fa ne ci ay xeeti couleur ak mbindee fi sunu borom ak ay kéemtaan yoo xam ne ñi ngi lonku ca garab ga leer gi ko sunu borom wërale xob yaa ngi toll ni noppi ñay noonu la ko yonent bi merale sallallahu alayhi wa sallam la bàyyi ko ca kaw sidratul muntaha fa la yegg si ñu jëlee ko ba mu ñëw ci suuf diggante ci kaw ak ca suuf sidratul muntaha da leen a séparé maanaam ñiy jóge ca kaw di ñëw ci suuf ci sidratul muntaha la ñuy jëlee la ñuy jël di ñëw jóge ca kaw wàcc ba sidratul muntaha mooy espace bi dox seen diggante borom bi subhanahu wa taala mu ni afatumaaruunahu ndax da ngeen di weddi yonent bi ala ma yara ci yëpp yi nga xam ne da koo gis waaye wala qad ra'aahu yonent bi gisaat na jibril sax nazlatan uxra weneen yoon fii ci àddina la woon yonent bi sikki dégg ku naan ko yaa muhammad mu xool gisul xool gisul xool kanam gisul mu teen ci kaw su way seen ponkal muy wàcc moo xam ni laaf yaa nga ni say yi fees ufuq bi jëmm jaa ngi tol noo xam ni masha allah la quwata illa billah ay lu niroo ki ay peri or jama ñi ngi wadd yonent bi ne janjang xëm sallallahu alayhi wa sallam ñaareel bi yoon sunu borom ni wala qad ra'aahu gis na ko nazlatan uxra weneen yoon inda sidratil muntaha ca fa ñuy wax sidratul muntaha barab booba ñuy wax sidratul muntaha mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ah gis na ba malaaka mii nga xamante ni moom la ñuy wax jibril jamono boobu jibril tamit mi ngi yor melokaan bi ko sun borom bindee kon ñaari yoon la ko yonent bi mas a gis ala suratihi alxalqiya wa illa yeneen yi ci des yëpp jibril bu ñëwee day yor melokaanu soxaa bu ñuy wax dixyatu ah dixyata alkalbi ca garab ga ñuy wax sidratul muntaha nee na gis na ko fa sunu borom subhanahu wa taala mu ni id ah indaha foofale ca sidratul muntaha jannatul mawa fala àjjana yi àjjana yi saxukaay ba nekk jannatul mahwa démb wax naa leen xeeti àjjana yeeg seeni tur jannatul naim ak jannatul firdaws ak jannatu adanin ak jannatul xuldi ak jannatul mahwa gis nga xeet yooyu mooy turi àjjana yi jannatul xuld jannatul naim jannatu gis gis nga yooyu xeeti tur la yoo xam ni subhanallah jannatul naim an naim mooy noos noos nga xam ni waa ji da nga koy xool rek sum waaye xam ni kii moom affaire am baax na ma moom laa yoo xam ni da ngay gis nit ki mën ngaa téyeb deram nii sum waaye laal affaire mel ni élastique di taweeku ndax noos ak nooy loolu àjjana rek la am man daal la góor gi doon wax naan booy wax ay uppam ak féex ma féexal fii mu ni man moom xajuma fii yëpp man àjjana rek laa xaj ma ne ko ah wax nga dëgg de wax dëgg yàlla yàlla suñu borom defal na ko moom boo nee toogal fii yëpp puusal fii mu ni man moom xajuma fii yëpp man moom àjjana rek laa xaj ndax xam na ne am féex li ma ci soxla àjjana rek la am wallahi wax na dëgg àjjana àjjana mooy ay jeex na aljanna mooy ay jeex na ay amatu musiba amatu yow doo amati lenn lu la naqari allahu akbar laa yabguna anha xiwalan wàcce lu la neex ci ay bagage te dootoo tuxu jannatu adan fii ngay sax tàkk dootoo fi jógee jannatul firdaws moo fare kaw yëpp nag allahu akbar nga xam ne dexi ajana ya falay balloo nga xam ni sumu waay ma nga ca kaw a kaw a kaw a kaw a kaw tiim yëpp nga xam ni toiture ba arasu yàllaa ci kaw dara féetewu ko kaw ajanay firdaws moo gën a baax gën a neex gën a foor gën a pare kaw ci ajana ya yàllaa ko tiim jeex amul leneen lu ko tiim ci maanaam firdaws ku fa tànk moom yaa tiim ñëpp sunu borom ni indaha foofale jannatul mawa fala ajanay mawa nekk loolu da lay wan ni kon ajana mi ngi existé da lay wan ni ajanaa nga ca kaw te it ma nga ca kaw la xel gën a mën a nangu kat ndax man yaatuwaay bii ma dégg ah xam nga ñun àddina mën nañ koo gam-gamle parce que fexe nañ ba xam séddale ko fii mooy Afrique fii mooy Europe fii mooy Asie te kenn ku ci nekk mën ngaa fexe ba xam sa wàll nu mu toll kon kay xam nañ àddina fañ xamagul kay foofa la war a mën a nekk loolu la xel sax gën a nangu waxuma la aaya yeeg xadiis yi waaye xel sax loolu la gën a nangu te yonent bi dafa rañaan dem ca kaw muy gis naa ajana visib na ajana visib na safara ca la joxe woon melokaani waa sawara ah ca la joxe woon waa ajana tamit bu dee ca melokaani sawara nee na gis naa benn waay bu ñu amr ibn luhay maa ngi ko seen mi ngi jëree koo ki butitam di watat watati ci biir sawara ndax moo njëkk a indi jaamu xéram biir màkk nee na ca laa gisee ay jigéen yu ñu sandaamtal takk leen ci seeni ween ñuy sandaamtalu di wat ca la gisee ca la gisee ca la gisee ca la gisee ca la dox ba mu yàgg mu dégg benn daal ay daal mu geesu ni waaw kooku kan la ñu ni ko kooku mooy xumaysa xumaysa al xumaysa ku ma jox tur wi dëgg xumaysa am na tur weneen tur ah déedéet xumaysa jigéen la waxoon naa ko ci das xayaat saxaaba yi xumaysa bii de moom faw ma teg ci kanam bu am solo insha allah al xumaysa muy jigéen ji yonent bi gis dégg gisoon biir ajana kooku kan la mu ni man la al xumaysa ah déedéet umm sulaymin binti milhaan moom la ñu tax al xumaysa yonent bi déggaat ay capar capari tànk kooku kan la ñu ne ko kooku bilal ibni rabax la allahu akbar mu jekki-jekki dégg koy jàng alquran kooku kan la ñu ne ko xaarisa tàngooku xaarisa bokk na ci ñi ñu jëdëb dans xayat sahaba xaarisa nga xam ne toppatoo way juróom bu jigéen moo ko yóbbee lii xam nga ni alquran di ñuy wàcc ci yonent bi matagut xoolal alquran di ñuy wàcce matagut pareegut ah yonent bi déggul keneen ku koy jàng fii mu dem ba ca ajana ji di ko fa dégg ku ko fay jàngee mbokk yi loolu rëy na de alquran di jeexagul di mi ngi doon ñëw di jamono jooju jeexagul woon yonent bi déggeewu ko fii waaye mu déggee ko ca ajana ja kooku kan la ñu ne ko ka xaarisa mu ni zaakal bir góorgóorlu ci say wayjur lii lay defal nit allahu akbar moo tax ñun ñi nga xam ne sunuy wayjur ñu ngi dund vitesse yi ñuy daw tuuti na lool wallahi vitesse yi ñuy daw tuuti na mbokk yi ñi seeni wayjur di dund vitesse yi ñuy daw tuuti na lool lool sax lool bala nga xam ne bi tey si tuddee nga laaj ko ki way juram faatu mu faatu ba pare mu doog a xam lim xam seetal benn waay boo xam ne way juram daa faatu ba pare mu doog a xam lim xam tey kooku bu la xoolee sëñ bi cim la lay bëgg a wax cim parce que dafa am lu mu bëgg te mi ngeeg yow mu bëgg koo exploité te jotu ci te yow exploité woo ko loolu la wala bii lépp naan ñi mën a kott ñëpp dëgg amuñu mbaam sunu borom subhanahu wa taala mu ni gis na ko moom yéen sa salam gis na jibril marratan uxra inda sidratil muntaha mu ni indaka jannatul mawa foofa la ajjanay mawa nekk sunu borom yu ni is yaghsha sidrata jamono ba nga xam ne sunu borom ma ngay muur garab ga maa yaghsha lan koy muur xeetu leer la fa nekk yàlla rek mooy ki ko xam xeeti mbir yoo xam ne ay mbindeefi sunu borom lañ yoo xam ne sunu borom ma ngi ko ca wékk yàlla rek mooy ki ko xam moo tax imam ahmad mu ngi nettali nee na yonente bi sallallahu alayhi wasallam nee na bi mu yegsee ba ci sidratul muntaha ah nga xamante ni foofa la yemukaay ba diggante waa kaw suuf ak waa kaw asamaan nee na dafaa gis benn lal lal boo xam ne or la lal or allahu akbar boo xam ne dañ ko faa teg mu ni ca lañ joxe yéen sa salam julli ca lañ ko joxe jeexital suratul baqara ah ca la ko yàlla waxee ni ko képp ku faatu ci saw xeet te bokkaalewul yàlla dinaa ko tabal ajana foofa la ko sunu borom joxe sunu borom subhanahu wa taala mu ni ma zaaga al basaru bët bi jengut jëm fenn ma zaaga jaddut di xool luñ ko xoolowul al basaru bët bi wama taxa bewut di yërndu luñ ko yërnduloo wut allahu akbar fii ci taskiya yi la bokk yàlla dafa taskiya ba taskiya ay bëtam gis nga gan olof yi dañuy wax ne gan mën ngaa gaa tere lu ne ba mu des xool ak dégg gan moom boo ko amee bu la neexee nga ne ko toogal fii bu la neexee nga ne ko bul laal bëy bu la neexee nga ne ko bul yeewi bëy lu la neex wax ko waaye xool ak dégg moom bu ko jéem a tere mënoo ko waaye yonent sa salam pour wan la ñu ne maanaam gan yépp moo ci gën a sérieux sallallahu alayka ya rasulallah man de maa ngi jàpp ni wax dëgg yàlla ku sunu borom invité nga dem ba ca pays yu kawe ya jibril ànd ak yow ba ñu la fii laay yam wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum fii laay yam ça veut dire que musu koo dépassé te du ko dépassé yow nga ni fii dépassé ko dem fa sunu borom ah gis fa ay ayat xool ayat yi rek waaye ayat da ngaa war a xool waaye yonent bi xoolal yar bi sallallahu alayhi wasallam sut na ñëpp ma zaaqa al basar wa ma taxa yàlla mu ne bët bi yonent bi dafa yaroo yaroo yaru sunu borom naa ko xoolal fii rek mu xool fa xoolal lii gis nga lii mu xool wala fa mu jàkkaarloo waaye gëstuwut mukk di xool luñ ko xool la wut allahu akbar mbokk yi xoolal bii yar fii la yar yam ajana ma ne jàpp naa bu doon ñu ne dañuy xool ba daanu foofu laa wax da ngay xool ba daanu ci suuf ndax yow waxuma la sa xeeti xéewal ya waaye am péex moo lay romb péex moo xam ne sumwaay bu nee la pëyéex da nga yaakaar ne parfum lañ la sotti am péex am péex gazon boo xam ne gazon boo xam ne ay per ay per lañ ko defaree xoolal fii suñ gazon xama gazon synthétique ak affaire yi nga xam ne su waaye ay xuusement ñàpp la léeg-léeg mu daal di yàqu fee ay gazon yoo xam ne ay per lañ ko defaree per allahu akbar ay per durrak yaqut zabarjat ah lutlu marjaan dur yaqut zabarjat lu'lu marjaan dahab fidda fefa la fekk baax gazon gazon boo xam ne loolu lañ ko defaree peex moo xam ne bu ne la pëyi nga yaakaar ni bu tee la parfum lañ sotti sa kanam allahu akbar jox soxlawul ànd ibn al qayyim bu ne soxlawul ànd soxlawul cuuraay parce que gis ngeen lii malaatuha miir ya miir ya birigu or birigu xaalis la peinture ba peinture ba parfum la misk misk maanaam misk bi fii la amee bi allahu akbar benn bis damay dox ba mu yàgg lii mi ngi xaw a bëgg a yàgg ñu bari gis nañ ko am na xeeti parfum yoo xam ne ci courant nga koy branché muy gëllal néeg bi bi ma ko gisee dama ni bii de yéeme na waaye ba léegi ko gën a yéeme xoolal peinture boo xam ni kenn du ko changé ci ca la parfum bay génne wa malaatuha misk allahu akbar allahu akbar moo tax melal wuñ la melal ajana rek jàppal ne sumu waay daggi ci way lañ ca wax waaye bàyyi nañ lu bare bare bare lii nag moo tax suñu borom ne wa fii daalik fal yatanafasil mutanafisun borom bi mu ne xel yu bari yi xel yi xel yi lii rek moo ko jaax ngir am ajana yàlla suñu borom may nu suñu borom mu ne ma zaaga jaddut jengul albasaru bët bi wa ma taxaa te bewut di xool luñ ko xoolloowul laqad raa gis na moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam min ayaati rabbihi alkubara ci kéemaani yàlla yu mag ya ajana ca la sawara ca la sidratul muntaha ca la subhanallah barab jaww jooju xam ngeen bokku te sunu yi ñuy expliqué comme daan diw dem na Amérique dem na capitalu Amérique dem na France dem na Bordeaux dem na fii gis na ba lii laa seen xeet yooyu ñuy wane nga xam ne ñun ñii def noo yéem parce que amut fii foofa nag fa la ayatu rabbihil kubra nekk xam nga ni ku dem ba ci barab ñun la sa waay fii nga ne nga ni naam ñu ne la fi la ajana nekk fii la sawar anam ñu ni ma nga nee fii la sawar a nekk anam mu ni ma nga nee daal di koy te jibril moo ko doon gidd nag mooy gidd bi di ko wan allahu akbar yonent bi alayhi salatu wasalaam gis na ci ay kéemtaani yàlla ba gis ak kër goo xam ni sunu borom mi ngi ko tabaxal xadija di soxnaam radiyallahu anha ba mu dikkee mu ni ko nee nañ ma sa borom yàlla mi ngi lay nuyu allahu akbar subhanallah loolu loolu loolu jar na dootu amati lu la naqari ci àddina la ma waxoon mbokk ma nee naa ko yow moom bu fekkonte ni bu fekkonte ni borom bi subhanahu wa taala da nga koy delloo njukkal ni nga ko waree delloo njukkal mooy bul amati lu la naqari ci kaw lu yàlla defati rek na la neex yow allahu akbar yàlla tabaxal na ko kër goo xam ni birigu or birigu xaalis te nee na mi ngi lay nuyu noonu la xadis bi ñëwee te nee na mi ngi lay nuyu kooku foor na lool kooku jigéen ñi war nañ koo jël def ko qudwa muy Khadija binti Xuwaylid radiyallahu anha tey li gën a kéemaane sax mooy lislaam jii ñu yor daanaka tuuti la ci fekkee cat sa la fekkee cat sa rek la fekkee lu bari ci alquran tey boo ko jàngoon fekkeewu ko lu bari ci xadis yi moom taxul di wax sunu borom mu ni afaraaytum mu neex def ngeen ak taxaw seetlu ci seen yàlla ju lott gi ñu tuddee laata allaat mooy ku lot allaata mooy ku lot lu tax ñu tuddee ko ku lot mooy comme ñoom dañoo gisoon ni yàlla am nay tur ñu bëggal seen xërëm yi ay tur ñu ni allah añaane nañ koo wax kon nañ damm xaam gi def ko taawun tuddee ko laata jigéenal ko ñu jël yàlla ji jigéenal ko def ko laat allah ñu ni allaata muy bonkalu xërëm woo xam ni bokkaalekat yàlla yi dañ ko doon jaamu xeremu laata moom mi ngi woon ca kaaba ga fa lañ ko degoon muy aw xeer wu yett ba mu rafet weex tàll nag gars yi di ñëw di ko siyaara ak di ko ji nangam waa Taayif ak ñeneen ñeneen ci ñi nga xamante ni ñoo bokkoon ak giir ak Makka borom bi subhanahu wa taala mu ni afara aytum mo ndax def ngeen ak taxaw seetlu ci kooku di yàlla yàlla lu wala ñu koy teg yàlla allaata mooy ku lottu ki sunu borom mu ni ndax seetlu ngeen ko wal uzza ak ku alku ki uzza ñu ngi ko jële ci aziz al aziz ñu ne añaane nañu wax al aziz ñu ne uzza al aziz mooy sunu borom al uzza mooy yàlla ju alku ji mooy joojo nga xam ñoom moom lañ doon jaamu sunu borom ne afaraaytum ndax gis ngeen def ak taxaw seetlu allaata ci ku lottu ki wala uzza ak yàlla ju alkuja wa manaata ak yàlla ji nga xamante ni dafa sànku moom it muy manaat nga xam ñu ngi ko jëlee ci almannaan ñu ne mannaan de moom añaan nañ ko wax ñu tuddee ko almanaat yépp ñu jigéenal ko xam ngeen lan lañ jubloo ci jigéenal ko saboote yàlla ak yonenteem saboote rek malaaka ya ñu ni ñooy doomu yàlla yu jigéen laata uzza manaata luñ jël rek jigéenal ko parce que saboote lañ ci jubloon parce que arab yi booba ñoom bëgguñu doom jigéen lu góor lañ bëgg su ko defee li yàlla waxoon ci suratu zariyat wax ko ci suratu tuur waxaat na ko ci saar bi mooy la ma waxoon ci suratu safat astafal banata ala al banin ndax yàlla moom bu tànn doon am kon lan moo tax muy tànn ay doom yu jigéen bàyyi doom yu góor yi maa lakum kayfa taxkumuun yéen xanaa amu leen ay xel sax bi ngeen di xalaat même bu fekkoon tànn am na xanaa góor ñi la sunu borom daan bàyyi jigéen ñi comme yéen nee ngeen loolu ngeen bëgg waaye sunu borom amul lu mu cay tànn subhanahu wa taala ak thalithata al oxra ñetteel ba ca des mooy ñetteelu yàlla ndax yii ñooy yi gën a siiw laata uzza manaata giir bu nekk dafa am yàlla ñii bant lañ defaree ñii xeer lañ defaree da ngay ñëw defar benn yàlla boo xam ne yaa koy présenté ba mu jekk yaa koy yàtt yàlla joo xam ne su may poqtaanee sax yaa ko yàttal xoolal yàlla joo xam ne sa waay yaa yàtt ba yàttal ko ay poqtaanam kooku nga xam ne ni kooku mënu laa fajal dara yaa yàtt poqtaan yaa yàtt yàtt xarante yi tànk yi yaa yàtt bakkan yi yaa yàtt boom yi yaa yàtt lépp moom yàlla ji moom yaa koy defal lépp fu mu dem yaa ko fa teg na yàlla ji moom yaa koy yàtt fu mu dem yaa ko fa teg te it boo ko tegit du fa mën a jóge nag moom fa la nan sàmm sëmmaaral rek sëmm sëmmaaral rek taxaw benn place te boo nee ko tell mu ni këlëb boo nee kotat mu ni jëppet booy wax ak moom mu ni sëmm sëmmaaral kon yow moom fi ne yaay wax yaay def moo la gis nga ab yéefar ab yéefar kenn gënu koo nekkub dox ab yéefar kenn gënu koo nekkub dox defe naa yéen a ngi fàttaliku qisatu amr ibn jamuh nga xam ni bokk na ci li ko tax a tuub ginnaaw ndimbalam suñu borom mooy ki doon soox soox bu metti ba ay doomam ci kër gi dañoo gëm yàlla nekkew am na jenn yàlla jum dem ca defar ko ca gannaaw këram ndeke ay doomam tuub nañ ci ko nëbb doom yi dégg yonente bi waarante xam nga xale yi ñoom gis nga affaire boobu nag ba tàngooru gone gi ba léegi mi ngi fi nag xale yi dégg yonente bi waarante di wax ci wàllu bokkaale ñu bàyyi ba góor gi tudd rek su waay ju góor yàlla ji sànni ji ca àll góor gi yow ñëw di xool si rek day saan fekk yàlla di ñu yóbbu ko yàlla ju ñuy yóbbu moom jooju yàlla mbaa yow yàlla joo xam ne yow su waay bi ñu lay sàcc bii mënoo téye sa bopp yow mënoo fajal sa bopp góor gi mer di topp tànk ba fekk fiñ ko sànni mu mer xultu dagg ay saaga indiwaat ko defar bu ma xamee ku ko def nekk ñaari doomam yu góor ñoo ko def ñoo tuub nekk ci kër gi di nëbb sama ndaw day ànd ak kaw tàngoor nag ñaareel bi yoon ñu def ko góor gi ñëwaat ci ëllëg sax day mag ñi dañuy teel a tëdd ñëpp ci ñoom bokkut ak magi Dakar yi bokk mu ñëw fekk affaire ba demaat gis nga ci ñetteelu yoon xale yi dañ ko yóbbu ca pegg teen ba bàyyi ko fa jël till gu dee teg ko ci kaw bopp bi góor gi ñëw ba tiim mu ni ah yàlla ju xullee ñetti fan ñu di ko watat di ko indi fii te mënta téye boppam may wax ba ak till wala njàppaan di ñëw naan tong ci kaw bopp bi arabun yabulu solabaanu bi bi bi rësihi yàlla ju xullee ba ay till di toog ci kaw bopp ba dafa saw mu ni man ji yàlla dootuma ko jaamoo ci bis ni ki tey gis nga bi ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam séenee muy ñëw ci ci la yonent bi xam ni kii day tuub si moo doon wax yonent bi naan sama tànk bii may lagaj lagaj yi dama ko bëgg a lagaj lagaj yi comme biir ajana comme ñëpp yonent bi ni ko yow bokk nga ci ñi yàlla jox ngant ci wàllu jihaad ah mooy alqaaiduun ah mu ne comme man damay dem comme ñëpp bu ma shahidee baax borom bi may ko shahada ca loola radiyallahu anhu wa arda kon yàlla yi xërëm yi nga xam ne ñoom ñoo ko doon yett kenn ku ci nekk day am yàlla yi am yu gën a mag yi gën a mag mooy ñett yi sunu borom ne alakumu zakaru ndax yéen da ngeen a féetewoo góor yi wala gul unsa sunu borom moom féetewoo ay jigéen sunu borom ni tilka loolu day idan su boobaa qismatun ak atte la goo xam ne diza gu jeng la ndax même atte bu ngeen ko tegoon ci maante segam sañees naa atte noonu te sañeesu ko du ngeen jël lu jigéen jox sunu borom jël lu góor sunu borom ni in hiya yàlla yii de nekkut illa asmaun lu dul ay turi kese laata ussa manaata saalisata uxra ah isaafa naayila abu dar day wër kaaba gi di wër kaaba gi abu dar dafa laptoon ci biir kaaba gi jékki-jékki bu yàgg mu dégg ñaari jigéen ñaari jigéen di wër kaaba gi xam nga kaaba gi dégg ko ceg dañ koy comme ni ma ko waxee ndéew kii di ñaan isaafa kii di ñaan naayila Abu Dar daal di waaye bu dee góor ak jigéen kay takkalante leen mayen leen mayante leen rek xam nga loolu wax ju rëy la rek jigéen ñi daw parce que wax ju ji dafa rëy jël leen isaafa ngeen may ko naila xam nga isaaf day nuru góor naila te nuru jigéen parce que taa tombe jee tax mu ni jël leen kii ngeen may ko kee mu nekk jabaram rek gaa yi daw bi ñu dawee nettali ko waa dëkk bi ñi leen am na ku nekk ci kaaba bi ci lañ vérifié ndekk Abu Dar moo fa nekk bi ko yonent bi laajee yow ñaata fan nga fa def dañu def naa fa ñaar fukki fan ak juróom-ñeent wala fanweer loo doon lekk mu ne ko ndoxum sam-sam loo doon naan mu ne ndoxum sam-sam ah te jeexoo mu ne ko xanaa gisu sama ndombay baa bi ak sama sidi gi Abu Zar nee na bi ñu doon naan ndoxum zam-zam dafa sentir ni mi ngi commencé am yaram yonente bi ne ko taamu taamin ak lekk la boo ci jubloo lekk ak naan la timit kadalik allahu akbar gis nga ndoxum zamzam day yebalaate day yebalaate ndoxum zamzam day yebalaate waaw maanaam mbir yi ci yaqiin yi la rek ci maanaam abu dar lu mag fanweeri fan nit di ko naan am ndox kese te faatuut ba noppi jaaree fa gën a am yaram ca la yonent bi ndoxum zamzam lekk la naan la xadis boobu foofu la ko yonent bi waxee woon sallallahu alayhi wa sallam kon isaaf ak naahil ak laat ak uzza ak manaat ak saalisatul uxra ak yooyu yëpp manaata mooy saalisatul uxra ñetteel ba yii yëpp ay xeeti tur la yoo xam ni sammaytumuha yéena ko ko tuddee antum wa abaaukum ak seeni baay ma anzala allahu biha min sultaan sunu borom mu ni wàccewu ma benn preuve benn lay buy wane ni ñii ay yàlla lañ waaye dañ leen war a jaam sunu borom ni in yattabi'una gaa yi ne dañuy topp illa zanna toppuñu illa zanna lu dul ay njort ay njort rek wa ma tahwa al anfusu ak lu neex sa bakkan xam nga ni xool garab bi ba mu neex la nga ne garab gii de ku ko yettoon yàlla dana nekk yàlla ju rafet xam nga loolu xëy baa neex dëgg la waay xool ab nit ba mu yàgg nga ni kii moom sum waay bu ñu demee àllaaxira moom bu soob yàlla jërul may am benn problème sama lépp dana ko defar xam nga yooyu moom wóorut de wóorut de la waaja ne woon fii ci àddina am na yoo xam ni kenn mën na ko fay rek leer gis nga fii ci àddina képp ku ñu yaakaar ni day tàbbalaate ajana ab taalibe ma nga kaso maa la ko wax maa la ko wax déedéet mu ngi koy ñàkk fa mën a génn moo tax mu ne fa ñàkk ko fa mën a xam nga ni kay ku mën a génn sa taalibe saamir kay dafa taw benn ngoo ku la ko ci mën ci waxit am mbokkam mas naa accident accident bu métti métti te ko sañoon loolu dal ci sa mbokk te it li ma ci jaaxal léeg-léeg nga feebar dem hôpital di léeg-léeg sa nga xeeb yi nekk fii dem yu gën a sori mbir yi su mooy fii lañ mënta séddale bay séddale fële maanaam fële tikke ya fay séddale waate tikke yi ci boppam moo newut fii ajana tikke yi ki koy séddale kenn la koo koy abul qasim abul qasim allahu akbar mooy séddale yëf yi te it kat séddale gi kat nekkul ku ko neex mu jox ko ko sax moom de mooy jékki-jékki mu yàgg rek ñu daan kat mu ne abubakarin fil janna omarun fil janna ali fil janna osman fil janna talha fil janna zubayr fil janna ah saïd fil janna ah waay waay ndeysaan di lim rek mbooloo maa ngi toog yow ajana ngay dem yow ajana ngay dem yow ajana ngay dem yow ajana ngay dem diw ajana lay dem diw dina dugg diw dina dugg loolu yonent bi rek moo ko doon def sallallahu alayhi wa sallam abu bakrin ci dundam ba faatu xam nga lu mu doon wax bu benn tànk bi tàbbee te beneen bi duggagut xel mi du dal abu bakar nee na bu tànkab ndeyjoor bi duggee te tànkab càmmoñ bi yeggseegul xel mi du dal fii bu càmmoñ bi fekk suul bu ndeyjoor kooku boppam la dal kii kii boppam la dal xam nga ni waxu waxuma la keneen kon jàpp na ni keneen kuñ jàpp ni foofa yaa fay séddale ah wax dëgg yàlla waru nga te it nax nga ñi nga àndal moo tax boo demee ci suratul ahzab ci jeexintal ba maa ngi leen ko doon wax yasalunaka ani saa ñu ngi leen laaj kañ la alaxira qul ilma innama ilmu inda allah mbir moom bi bàyyi koog yàlla rek wa ma yudrika la alla saat takunu qariba li ma la mën a xamal mooy leemu yegg si ah sunu borom di lim di lim ba ba ak si ca gaaye naan sunu borom inna ataana saadatana wa kubaraana fa adalluna sabil yow sunu borom ñii ñuy tudde ay sang bandi yi ñii ñuy tudde ay kilifa bandi yi lañ toppoon fa adalluna sabil ñooñu sànkoon ba toppuñu suñu borom ñii boo ñu bawoon ak ñoom rek ñu def leen lu bon a bon a bon rabbana yow sunu borom aatihim daafayn min al atab sooy mbugal punal mbul mi mbugal mi ñaareel nga tegal ñu ko ci seen kaw xam nga ni koo bëggul woon sumu waay mbubam sax laal suuf ba nga koy yëkkatil tey nga naan yàlla loo ko duma xeeb naa ko alaxira mbokki la ba nekk newut fii de wala ankum laanan kabira yàlla loo leen rëbb rek xeeb nañ law anna lanaa karra gis nga bu ñu yàlla delloo àddina fa natabarra'a minkum gis nga bu ñu bu ñu sempee ko ba daj taxaw dinañ leen def lu bona bona bon fa natabarra'a minkum kama tabarra'u min fa natabarra'a minkum ñu dañ ci yéen ba set wécc comme yéen ni ngeen dañee ci ñun ah suñu borom ni wa taqatta'atil asbab bu muy jokkoo yëpp lay daggate yëpp gis nga de allahu akbar bu muy jokkal yëpp suñu borom dagg moo tax fële moom bu ndimbalam suñu borom jàllee jëfa gën a wóor de liggéey moom fayeek liggéey fayeek borom bi subhanahu wa taala mu ni kon ñoom dañuy topp seeni bànneex rek waaye wala qad jaakum dikkal na leen min rabbihim ci seen borom yàlla alhuda njub njub li mooy alquran mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sunu borom mu ni am lil insaani ndax doomu aadama dafa yaakaar ni moom da doon ko ñeel rek maata man na li nga reeme rek bébét ko rek loolu ngay am déedéet arab yi dañ ni ma kull ma yatamanna al maru yudrikuhu tajri riyaahu bima la tastahi sufun du nit lépp lu mu reebe mbébét ko rek am ko ñu ne lu tax mu ne parce que mool bi léeg-léeg ci géej la dëkk te mool ku ne xam ne moo gën a xaritoog ndox te léeg-léeg ndox mi sànni ko fu mu bëggul woon a dem kon nit ki du lu mu bëgg rek am ko am lil insaani ma tamanna ma da ngeen yaakaar nit lu mu reebe rek am ko sunu borom mu ni fa lillahi ñeen na sunu borom yàlla al axiratu mbiram al axira wal ula ak mbirum addina lépp moom moo ko géré moom sunu borom sunu borom mu ni wa kam min malakin aka bari am malaaka aka bari ay malaaka fi samawaati yu ne ca asamaan sa ah laa tuxni du jariñ shafaatuhum même ñoom seen ak ramm shay an tus du ko jariñ illa ludul min baadi ginnaaw an yadana allahu bu yàlla joxee ndigal xam ngeen fooraay moom malaakaa ci raw fooraay mi def moom malaakaa ci raw même malaaka sunu borom mu ni ak rammam du jariñ dara àllaaxira lu dul yàlla ko jox ndigal gis nga mbirum ram mbirum ram faw ñu jàngaat ko bokk yi demee wut niñ ko foogee de ah diw moo nuy ram ah mbokk yi loolu loolu wuur sax dafa wuur te sax a wax ndax moom ak ceexeem sax daa wóorugut fam ba ñuy wax naan dana ram kenn du ko ram malaaka yi ci boppam sunu borom ni laa yatakallamuun kenn ku nekk danaan miig miig ara kenn du wax illa man adina lahu rahman lu dul koo xam ne sunu borom ko jox ndigal ni ko waxal wa qaala sawaban buy wax lu leer lay wax lu jub wa lu waral li mu ni dalika alyawm alxaq parce que keroog bisam dëgg la ay tapale amu faa ki caaxaan tapale yi am fi ñu naan di way wax ak di way lii di way laa sunu borom ni dalika alyawm alxaq comme leer na nii nag fa man sha taxada ila rabbihi sabila comme neex nag ba yow nga seet yoon wala neex nga jaar waaye mbir yi moom leer na pare sunu borom ni wa kam min malakin aka bari malaaka fi samawaat ci asamaan ya laa tugni la ñuy sell sell du jariñ shafaatukum seenu ramm shay an dara seen ak tinu du jariñ tus illa min baadi lu dul gannaaw ba nga xam ni an yadana allahu sunu borom day joxe ndigal te buy joxe ndigal déglu liman yasha ku ko soob mbirum ramb gi mbokk yi ci machine ala tege de tegewut ci dëkk Sénégal mbaa Gambie mbaa Ghana mbaa fële mbaa Saudi mbaa nangam affaire yi tegewut foofu de mbaa doomi diw mbaa sëtëb diw mbaa sant nangam affaire yi tegewut foofu de nay leer nit ñi nañ leen wax li yàlla wax bañ leen a wax li nit ñi wax nit ñi nañ leen wax li yàlla wax bañ leen a wax li nit ñi wax yàlla li mu wax mooy ramm gi tegewul ci ay sant tegewul ci ay tur wala dëkk ci barab sàngam wala dëkk Afrique wala Europe wala déedéet xam nga fu mu tege ay yadana allah ñaari condition leen yadana allah yàlla moo lay jox ni la rammil wa yarda ca suratul anbiya pare wa yarda da lay da lay gërëm jox la ndigal wax la ka ngay ramm yadan mooy izn la lay jox defal te ku jox ndigal dañ lay wax ndigal lan la gis nga ndigalay ñëw ngërëm ñëw ñu orienté la fa nga fa nga yem li may yasha coobare sunu borom lay tege wa yarda yàlla tamit da lay gërëm ku yàlla gërëmul dooram kum joxul ndigal dooram te da ngeen yaakaar ne ram moom sunu borom danaan diw demal nga seet mbooloo mi rek ku la ca neex rek nga jël ko ram ramu du loolu de maanaam mbirum lislaam ci dañ ko war a jàngal nit ñi ram mu sax même bu fekkee day am nekkul ni maanaam dañuy dem ko yonent sa sax am na loolu moom am na loolu demal ci saw xeet nga ram te buy ram it day sélectionné de maanaam taux bi nga am ci bakkaar ni mu néewee te bokkaale amu ci maanaam yow loo am ci bokkaale taux bi lu mu tuuti tuuti tuuti duñ la ram fama tanfa'ukum shafaatu shafi'in léegi nag rammu yonente mi ngi aju ci tóow bàkkaar yi am na benn waay boo xamante ni tóow bàkkaaram bari na lool ba mu war a dem sawara waaye am na benn geste bu mas a def bu sell boo xam ni ah ca la ko yàlla gërëmee sunu borom ni ko xoolal mu xool gis nga li nga am ci bàkkaar mu ne man koy gis naa ko man koy xam naa yàqu naa rek man koy fi ne lii xadis la li may wax ni man koy yàqu naa rek alku naa rek man koy fi ne sayee moom àtte na boppam balaa ko yàlla àtte àtte na boppam ba pare sunu borom ni ko teeñ laa xoolal say jëf yi baax mu loolu koy jërul xool loolu moom dara lu ca baax amu ci ndax mi ngi nii sunu borom daal di lemmar ci lu mel ni lu ñu kornet ni ko gis nga lii mu gis mu ni ko lii de aw tiyaaba la xaaral ma tegal la ko ba xam ne ko yonent bi nee na cornet boobu laa ilaha illa allah bu sell te dëgg moo ca nekk yonent bi nee na bu ñu yëkkatee cornet bi teg ko ci kaw balance bi balance dana lëj ci suuf di wane ne laa ilaha illa allah benn boobu moo ëpp poids bàkkaar yi allahu akbar xoola ku dem ba jàpp àtte boppam ni alkuna benn laa ilaha illa allah bu sell te yàlla rek tax nga xam ne bokkaale amu ca moo ko tabal ajal moo tax yonent bi képp kuy faatu te faatuwaale laa ila benn ni wa huwa yaalam mu xam ko bee mu ni mu wax ko kon da ngay boole xam ko ak wax ko mu ni daxalal jana dana tabi ajana sunu borom mu ni kon yàlla illa min baadi an yadana allah yàlla mooy joxe ndigal kayram wa yarda li ma yasha ca ka soob wa yarda sunu borom daal di koy gërëm bu ngay seetloo surtout anbiya bañ koy tafsir waxoon naa ne suruti ramm ca aaya jëmal nii nga xam day wax ñii ramm waaye bokk na ci li nga war a xam mooy mbiram ramm ci boppam borom bu jagleelu ko ay nit yuñ naan ah ñii day niti ordinaire la ñii duñu ay nit duñu ramm déedéet gis nga benn waay bu ñàkk solo boo xam ni sum waay kenn joxu ko gën mën naa bokk ci ñii ramm ramm mi ngi aju ci yasha neex nga suñu borom wa yarda suñu borom gërëm na la te neex gi ni muy defee fii jox ñi xam-xam jox ñi alal jox ñi kàttan jox ñi doole jox ñi xel mu sell noonu la koy séddale ndax walal axiratu akbaru darajat wa akbaru tafdila gis nga yonent yàlla bi nee na am na benn waay boo xam ni du ab yonent waaye yàlla dina tàbbal ajana ci loxoom lu ëpp giir ak mudar ci misaal ñu ni population boo xamante ni daanga ay millions yi millions yi millions yi personnes lañ ñu ne li yàlla nar a tàbbal ajana ci loxoom dana tol noona rabiat ak mudar muy giir giir rabia ak giir ak mudar kon mbiram ramm nii la demee tekkiwul nit ku ñuul ngay doon mbaa ku xees africain ngay doon mbaa européen ngay doon mbaa da ngay doon sëtëb diw mbaa doomi diw mbaa mbaa taalibib diw mbaa sëñ diw moo la jàngal déedéet affaire baa ngi ci aju li may yasa da ngay neex yàlla wa yarda yàlla gërëm la noo ngi ñaan sunu borom subhanahu wa taala mu boole ñi nga xam ne dañuy bokk ca rammam yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam noo ngi ñaan sunu borom an yataqabbala minna salatana wa siyamana wa azkarana noo ngi ñaan sunu borom lépp lu nekk ci suñuy xol ci ay xeeti njàqare yal na sunu borom dindi ñu lépp loo xam ne mi ngi nekk ci suñuy xol ci xeeti sikk sàkk yal na sunu borom roccil ñu ko yal na yàlla barkeel na sunu njaboot yal na yàlla barkeel na sunu alal yal na yàlla barkeel sunuy waxtu yal na yàlla barkeel sunuy dund sunu dund yal na yàlla boole ñu min ahlil janna yàlla bu sunu borom sànq li nga xam ne dañ koy góorgóorloo ko su néew yal na ko fay yal na ko ful yal na ko nangu nu ngi ñaan sunu borom boole ci ñi nga xam ne dañuy gañe ci dàkk laylatul qadar te jot ko nu ngi ñaan sunu borom mu delloo sunu weeru koor ay weeri weer te it bu ñëw rek mu gën ba jiitu woon ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله وسلم على محمد واله وصحبه اجمعين